li nga xam ne moo dal ci Sénégal yi te particulièrement commerçants yi gën ci sonn tey nag ñu amoon benn opération bu noonu lancé euh, commerçant bu nekk ak masque moom lañu ñëwoon doon lancé fii ci marché Kermel. boo gisee ñu jël ay sant yooyu ñëw fii itam opération bi ñu ngi ko doon def tous les temps de territoire national te suñu section régionaux yi nekk foofu mais tey dakaar dañu ñëw seet si waa marché Kermel. marché Kermel dafay symboliser euh deug deug marché parce que euh, comme ni ngeen ko xamé euh marché la bo xamné ne bi muy installé wu bari na ay marché yu bari yu amul da boo ñëwee Dakar dem ci marché tank que ñëwuloo fii da ngay défé ne demoo ci marché té dafa melni affaire bi ñom la gëna a euh, frappé parce que li ëpp ci liñ fi def gannaaw daara des première cité ay obsédar lañ fi jaay li ci gëna bari diko jaay ay touristes touristes yooyu nga xamné ñom lañ koy jaay. ma bi ñu toll nii kenn ñëwatul Sénégal boo ñëwee fii sa yaram dafay daw ndax da ngay gis ñu ci bari seen offre yi ñu ngi koy nettoyé teg mais du xalaatuñu kuñ koy jaay ndaxte ñu ngi ko doon jaay ñëwatuñ donc su boobaa ah, li ñu war a def ñëw seetlu leen gis seen jàngoro mën ko jotali ci kilifa yi. ministre bi nga xam ne moom mooy seen ministre de tutelle Dame Diop eh, incha allah danañ ko rendre compte ci liñ ci fekk ak ministre de commerce.

particulièrement marché Kermel parce que dañuy ñaan yàlla marché bi euh, lii gaaw fi jog tam bañ am jeexital parce que xam nga tubaab bi dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo doy kiimaan te am information. xam nga bu affaire bi jàllee ñu ñoo ci ëpp problème il faut que ñun ñëpp ñu nekk ay communicateurs pour dans le monde entier ku melni ni Mayoro Mbaye fexe ba tubaab bi xam ne marché Kermel euh, bu ñu ñaan yalla ñu bañ fi dégg dara parce que bu amé tuuti rek day jeexital ci ñom bu ñu fi ñëwé même ba lañu fay ñëwati. danañ toog lu mat at duñ fi ñëwee dugg donc dañuy ñaan yàlla boo gisee ñun ñun ñu ñu ñëw njëkkee fii dañuy dimbalewaale ñi nga xam ne ñoo def obsédar parce que fii bu amee cas tuuti rek di affaire bi jeex lu yàgg kenn du fi ñëwee ñëw moo tax ñoom ñoo war nekk seen soldat bopp d' abord commerçant yi jóge seen kër di ñëw ku ci ñëw balaa agsi ci ñoom mu jël mesures yi bu ñu ñetti commerçant bu ñu eggandoo seen boutique nañu def distance yi di takk ay masque di laawee seeni loxo seeni i por seen i place itam ñu di ko defar ba mu propre loolu dana leen dimbale ci vraiment comme yàlla def nañu ñëw baax si fii yàlla di leen musalandi yàlla mën leen doolee musal ba eh, Seroka ba bi ñuy opération lancement bi ñu def Sénégal yëpp ñoom itam yàlla def eh, fii itam ñu gën koo ñu gën ci adopté wu. parce que ñoom ay nit la ñuy ñeex a neex a dimbale parce que koo xam ne ki nga daan liggéey ak i tubaab affaire civilisation moom kenn du la ko jàngal te ñii fi nekk ñoom Cissé ak ñooñu xam ne yàgg nañ Kermel ku ne xam ne ne Inaa ko Yeesal depuis président Dame Ndiaye père mësuñu fàtte Massa Kermel te loolu moo tax ñu ñëw feddal suñu kóllëre ak ñoom di ñaan yàlla itam mbas mi sa borom musal leen ci. am nañ ko parce que léegi <laughs> képp koo xam ne kii da nga daan da ngay jaay ak jënd tey di comme niñ ko xamandoo yéen transport bi dematul commerce bi dematul lépp lépp lépp lépp Sénégal dafa taxaw fi mu toll nii amu amu ci kenn koo xam ne la nga daan am am nga pour cent ci li nga daan am ñëpp am na ñoo xam sax amuñu dara te dañuy sonn parce que koo xam ne kii li nga daan am da ngay dem ca marché ba am ko dellu sa kër sa kër a mën a dox bu na la euh, toog nga euh, temps yu bari jaay amul temps ya ko ubbi te gis nga marché bi yéen a a ko gisandoo sax nga bu julli daan jot heure bi soo ñëwee doo dugg tey gis ngeen du ngeen magasin yaa ngi ni taxaw doo gis kenn koo xam ne kii dafa ñëw am jaay ma kon loolu da leen di won ne affaire euh, bi affecté na leen bu baax a baax ñu ngi ñaan gouvernement Sénégal mu jàppale leen.